ñoo ko créé ci seen bopp di ko répété di ko répété ba mujj far gëm ko jullit ñu ñàkk fayda yi di leen ko répété leen dem sax bay attaqué jullit ñi ne ñoo def lii ñoo def la waaye loolu yépp lislaam set na ci lislaam mooy li ngeen xam rek diiney jàmm la diiney xam-xam la diiney leer la diiney goreel doomu aadama la diiney teraanga pour doomu aadama la diine la pour jàngal doomu adama diine la itam pour nit ñëpp bokk dund ci jàmm joxante jàmm dimbalante itam ca gannaaw dafa am benn kilifa gu mag gu ma benn chef d'état ñuy wax ba àgg ci mbirum mbay mu ne man soo gisee ma fonk mbay waxuma la rek ne occasion la pour leyal doomu aadama yi waaye jaani bi ruuxi bi ci nekk maanaam wàllu roxo gi ci nekk ma ne ko gannaaw yaa ngi tudd wàllu roxo nag maa ngi lay xamal ne yonent wax na ne nga leyal benn jaam maanaam tibboo dugal ci biiram nit ku xiif moo gën nga tabaxal yàlla junnee juma mu ne ma yonente bi sallallahu alayhi moo wax ma ne ko moo ko wax mu ne ma moo tax ku gëm yàlla man warta seetaan doomu aadama ñu di ko toroxal wala doomu aadama xiif di ko rey ma ne ko ba tey yonente bi sallallahu alayhi waxaat na ci beneen xadis ne gëmut koo xam ne mi ngi fanaan ak biir bu fees tandis que voisin bi ci wetam xiifan koy bëgg a rey bi nee na kooku duut ku gëm yàlla lislaam diina ju sell la diiney jàmm la diiney leer la doomu aadama itam yàlla moo ko teral kon li war rek mooy teral ko kenn warta toroxal doomu aadama moo xam muy góor moo xam muy jigéen tey organisation mondiale yi na ngeen jàngal jigéen ñi lislaam dafa jàngal jigéen ñi ca bés bu njëkk ba ca bésam yu njëkk dem na ba ne xuzu nisfa diinikum min haadihi al xumayra jël leen seen genn wàlli diine ci jigéen ju xonq ji muy ndey Aysata ndey Aysata duut ne alquran ak xadis rek la xamoon nim ma ne woon alquran ak xadis noonu la foore woon itam ci histoire ak ci littérature ak même sax ci médecine am na ku ko laaj ne ko alquran jeg hadis bi xam nañ foo ko jëlee mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom la yàllay wàcce alquranam ci moom te yónni ko mooy sa jëkkër foofu nga ko jëlee xam-xamu histoire yi arab yi ak littérature xam nañ foo ko jëlee mooy sa baay sidna babacar siddiq radiallahu taala anhu kenn rawut ko ci lefu moom waaye médecine nag foo ko jëlee mu ne yonent bi sallallahu alayhi dafa bari woon lum daa feebar bi mu jubloo wàllu mag arab yi ku ñëw rek indiyaale sa garab ne lii moo ci ay mun a jàngal leen ko suma jabar ji mu defal ma ko mu ne xam-xami médecine foofu la ko jëlee te nga nga gisati tam ne lislaam diine ji ubbeeku la xaaris ibnu kulda duutoon jullit waaye xam amoon na xam-xami médecine yonent bi daf daa yónnee ci moom di jël ay tegtal yi paj ci moom suñ diine ji diine melut ni moom inna diina inda al islaam yàlla moo ko wax wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu yàlla moo ko wax ba tey kon nag nañ jàpp ci diine ji bu baax lépp lu diine ji santaane nañ ci def luñ man lépp lum tere nañ bàyyi loola suñ kem kàttan bàyyi ña sa wax na ci waxam ci jawaay rasaayil da ngeen ko jàng nee na képp koo xam ne dangaa bëgg a ànd ak man na nga sóobu suma yoon ci wax yi ak jëf yi ci topp digal yi yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ak ci teet itam seeni tere ak waxtu wu nekk ngay gën a góorlu di gën a namm àgg ca ngërëmal yàlla ak ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne nag yaa ngi askanu ci man te toppoo ndigali yàlla yi ak ndigal ndigali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeni tere itam bàyyiwoo ko seeni tere itam yaa nga ca waxtu wu nekk mën ngaa bëtt sharia bi def ay ay bàkkaar mu ne mi ngi xamal ni ñi ne kooku noonu moom Baye Niass jotewut ak moom dara nañ seede ne kooku moom amut moom affaire sax ku bëgg a nekk ak moom daal ci xaal bi mu nekk mooy ngay topp ndigal yi di bàyyi tere yi wax nañu ci ay waxam alxayru kullu fi littibaay wa charru kullu fi libtidaay xiw lépp mi ngi ci topp ndigal bàyyi tere wax nañu itam ne wàlli yu mag yi ngay dégg yëpp muy si sidi Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu seydi Abdul Qadir Jili ak ñu mel ni moom mu ne defuñ darra li mooy topp yàlla ci ndigalam yi ba def ko topp yàlla itam ba bàyyi tereem yi maqaama yi ngay dégg yëpp mu ne yàlla leen ko may ci mbaaxam te dara jeexut fa yàlla nag wax na ne na ngeen na seen itte dara jeexut ci peeb yàlla ba lu dul nubbu watu rek jeexut fa te yàlla may la xorom si ngay def sa ak may la xutbaaniyatu uzma ben la fa yàlla loolu itam Baay Ñas daanañ ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne kullu nnaasi yadxuluuna aljannata illa man aba fa qaalu ya rasulallah wa man yaba an yadxula aljannata qaala man ataani daxala wa man asaani faqad aba yonent bi sallallahu alayhi wax na ne nit ñëpp aljana lañ jëm lu may ku bañ ñu ne ko ana mooy bañ a dem aljana mu ne ku ma topp danga dem aljanna ku ma mooy bañ ngaa dugg aljanna kon nag nañ lu ci topp ndigal yi ba def ko góorgóorlu itam ci bàyyi tere yi suñ kem kattan ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci bés bu màgg bi nga xam ne moo leen dëqati yëkkati leen ñu jóge ca seen réew ya ñëw fii pour feetu ko feetu ko itam fii Baye Niass nekk yëfi Baye Niass nag amul tardement waxoon na bu yàgg ne nalal muna man qad atani awwala wa akhiran ya akhiran ya awwala mu ne ña ko dikkaloon Murado. jëkk danañ jot sen muraadu ñi ko ci jot sen bëgg-bëgg kon amut amut tar ki ñëw tar tardé na fekkut fi baye tardé na deret. waxtu wo ñewé rek da nga am sa bëgg-bëgg ci pays baye ñi gi sant yalla bu baax doli ci liñu santone di ñaan yàlla yàlla dimbale lislaam bi yàlla dimbale julit ñi toroxal noonu lislaam yi fuñ mën di nekk yàlla na yàlla wollu julit ñi yàlla na yàlla yëkkati diine lislaam yàlla na ñu yàlla def ñun ak yéen ñuy ndimbal ñeel lislaam yàlla na yàlla def lislaam muy suñ dimbal yàlla nañu yàlla wattu ñi mu wattoo téeréem bi yàlla ñu ko wattooyee te wattuñu ci lislaam te wattuñu ci gëm yàlla wa ma dalika ala allahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu محمد المصطفى محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه وعلاه في الرسل شرواه قد اصطفى المصطفى قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى ذا المصطفى من أجل قربان والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشعته وليل مسراه والله والله والله أرسله للناس أجمعهم ختم الرسالة ما برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان